asalaamaaleykum mbokk yi teel a dibéer fukki fan ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar fukki fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon ci dibéer di rafet na li ñu ci tere tere wattandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanuk bis bi yàlla na yàlla barkeelal leen seenuk ayit te nangul te nangul leen iidukum mubaarakum taqabalallahu minna wa minkum xadiisu bis bi jëleef na ci anas ibnu malik yàlla na yàlla gërëm leen mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaski woon na ci ñaari gàtt yu weex yu duuf te ami béjjën mu rendi leen ci loxoom daal di tudd yàlla daldi di jël ab tànkam teg ko ci seen wet ya xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali an anas ibnu malik radiallahu anhu qaal daxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni amlaxayni aqranayni dabacahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wadaca rijlahu ala sifaacihima rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñett tisbaar benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeent fukki simili timis juróom-ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent gee juróom-ñetti waxtu wu tegal juróom fukki simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër